boo xamante ne promoteur u làmb moo tëgg kalaaf muy Gaston production ñuy nuyu bu baax a baax makkan ma nga màkka ñu lépp lu fa ñaar yàlla ko suñu boroom nangu. amiin yàlla. bi dox ci diggante Doudou Sané ak ki nga xamante ne mooy Caatu Yaraax Caatu Yaraax wax que ni contrat bi moom final bokku ci mu jur ay coow yoo xamante ne entre ñaari Abdoulaye Dey sax bokk na ci Abdou Aziz ak Abdoulaye Ndiaye mu jur lu bare bare bare ci wàllu làmb yow nga nekk promoteur. boo déggee loolu ban gis-gis nga ci am. bon loolu xam loolu dama ci bëgg a sori un peu. Mhm. parce que comme li ma wax li nga xamante ne concerné wu ma directement. Mhm. te damay bañ wax li nga xamante ne ni tey dina indi yenn incompréhension yi. Mhm. mais rek pour leeral si. si li ma sama xalaat bu gàtt. parce que contrat Garga 2 man yor naa ko. donc xam na libellé yi nekk ci contra bi. donc war naa cee mën a wax. Mhm. lan laa dul wax li nga xamante ne ni gisuma woon benn contrat ma ne tey damay dëgër fit wax ci mais comme liir naa libellé contrat Garga 2 li ci nekk euh, moom mooy da ngay bëre claf li ma la say adversaire mhm. ne la en cas de finale. en cas de finale. Mhm. Euh, da ngay bëri un quatrième combat pour le contre Gaston Production. donc loolu moo nekk ci contrat bi ma liir ci Garga amul binu ci da ngay bëreeg mbeur sangam bu nekk ci benen pool mais nee en quart de finale da ngay bëri un quatrième combat exclusivement pour le compte de Gaston Production donc pour wax rek li am Caatu la champion la dafa def ay presse yu mag. Mhm. daan ay champion. Mhm. comprendre nga. Mhm. waxale na cachet juboo na si ak le promoteur. tay ñom seen cachet tolowul comme joueur de football yi nu salaire yi tolowé a cachet yi ñu nek ci classe bi li ma ci xam. tolloowul parce que ku nek ak ni nga toll. ku nek bi ngay dugg ci classe bi fi nga tolloon. bu ñu waxantee dëgg rek te te yàlla tax. donc mom dafa am un quatrième combat bu mu wara livrer pour le compte de Gaston Production lol mom mo nek ci contrat yi je pense que ci ben article damay bañu a jum article 4 xaw mom mo ci nek donc il a il doit livrer un quatrième combat pour le compte de Gaston production da koy bëreem du ko beure loolu mom luma ci sori loolu il est libre mom moy xol naka la koy gérer ak euh, wa écurie mais dal man lima ma ci contrat Garga 2 bi loolu mo ci nek maintenant que gaay di wax mënoon nañ spécifier ci biir contrat bi ne en cas de finale on rencontre rencontrer le vainqueur ci Poulbi, poule mais ce ay sew sew droit je pense que ay interprétation mën na cee mais il ci am un quatrième combat qui est ko exclusivement pour le compte Gaston Production. Euh, quatrième combat en cas de final comme nous l'avons dit, il y a ñoo tibir qui nee nañ ci biir texte chibir, dafa am des gens qui lu Gaston Production def parce que pour son quatrième combat nee nañ binduñu euh, combat combat sax def na pour son quatrième quatrième rek la ñu wax quatrième nag moom quatrième kenn xamul quatrième. non xam nga trois combats nga am bu ñu nee quatrième combat am nga tamit il faut ñu qu'on soit un peu euh, intellectuellement honnête. ñu wax ñi li ñu lire rek ñu wax ko quoi. quatrième combat moom mooy en cas de en cas de finale ñaari interprétation la. bu nekkee le promoteur dafa décider organiser final loolu mooy première interprétation bu ci am deuxième moom mooy bu nekkee mbër mi dafa qualifié final mm-hmm. loolu moom mooy seconde interprétation mm-hmm. ci man li ma jàng ci droit mm-hmm. ni ma ko xamee moom mooy tey bu bine en cas de finale moom mooy si le promoteur boo bëree sa ñetti combat dafa décider tenir une finale mooy benn bi deuxième bi moom mooy bu fekkee yow mbër mi da ngaa qualifié final donc ces deux conditions là sont réunies promoteur dafa décider organiser finale le lutteur en question dafa qualifié pour la finale. donc binduñ ci finale. pour en quart de finale waaw en quart de finale la wax donc quatrième combat bi da nga ko exclusivement pour le compte de Gaston. Mhm. peut-être dañ doon bañ dem finale ñu bëri ko pour le compte de notre promoteur. Mhm. moo tax ñu bind exclusivement pour le compte de de garçon produit. de Quand il est li dal théâtre, vous bu une Garga 2 la mun a bëriwul yéen nan ngeen fas yéene doxal ak dañ ko naan mu bëri ji contre nekkee ci contrat jàmbur ak loo mënti négocier boo négocier fukki dërëm. Mhm. mo nek sa contrat da ngay bëri ji bu nekkoon Garga 2 dañ ko nan mu dem bëri ji wax deug yalla hmm. vraiment te Thiatou yarah man limay wax ci mom dama gis mu nek champion daan beuri ay jël yu bokkul def ay surprise donc libre na libre na mu xol lu muy def ak ay mbokam mais man dama wax rek sama interprétation texte yu ma lire. Hmm. maintenant nak chacun est libre tay mu mu mu ko num ko nexé hmm. bo gisee ay kilifa yo xamantani ni ñu ngi xaxarante. ci làmb waxante lu ñaaw loo xamante ne ñoom ay kilifa lañ tey ay nit di ci di ci wax di ci communiqué mu mel ni ku ku mel ne le manager Abdoulaye Ndiaye ak Abdou Aziz Ndiaye kàddu yooyu boo ko gisee en tant que promoteur yow ban gis nga ci am. moi je pense que ñooñu nga lim léegi ñoo ma jiitu foofu ci làmb. Mm-hmm. te tuuti naa trop pour euh, jox leen ay leçons. Mm-hmm. vraiment. Mm-hmm. tuuti naa trop pour euh, dugg ci seen diggante. wala pour di ci am benn. Euh, explication bu ma si joxe. Hmm. waaw loolu daal la am li ma si wax ay kilifa lañ ñoo ma jiitu ci làmb fuuf. yow promoteur la boo géegee yooyu. ban gis-gis xam nga mooy li mooy li may wax rek bi leen màtt mën na mooy li may wax rek am na loo xam ne kenn du ko rafetlu mais li may wax dama tuuti trop pour jox leen ay leçon ñoom ay kilifa lañ dinañ xool après naka lañ koy réglé si entre ñoom mais daal bëgguma ci sori. Hmm. léegi nag ñëw ci dañ te fukki. Hmm. Franc dafa bëre combat ñu bari ne jàmbaar production ñoo ko bëgg a ñoo ko bëgg a jàllal yoon ñoo ko bëgg a wutal yoon combat mu soq jàmbaar ko tëggoon combat ak bombardier jàmbaar ñoo ko tëgg mu daan bëgg a attaqué Eumeu Sène carrément boobu na jur lu bari Eumeu Sène nee na jëloon na décision may ko sens mais pareetul pour may ko sens parce que communication franc neexu ko bi nga gisee loolu en tant que promoteur ban jéego nga ci def. waaw d'abord euh, franc treize combat la am. Mm-hmm. 11 combat jambar jàmbaar jambar ko jàmbaar deux combats am la tëgg mom ak soq ak mom ak bombardier 11 mhm. combat am promoteur ko amul benn mbeur bu nek jambar bo xamantene jambar production dalay teunk tënk ne ñun ngay beurel par force mhm. lolu mom moy première chose benen bi mom moy Franc dafa ñafé dem ay CEDEAO jël ay drapeau chef de l'État mhm. bobu kon xam nga ne jàmbaar wutalu ko yoon. Mm-hmm. ak lit simple yi mu toj. Mm-hmm. bëri dix combat jàmbaar tëggu ko onzième combat am la jàmbaar tëgg ak treizième combat am donc loolu rek c' est pour un peu battre en brèche yenn affaire yi ñuy wax mais loolu moog lamb ñoo ànd. Siteu bokkul jàmbaar. Mm-hmm. trois dernières affiches yi mu am jàmbaaru ko tëgg. donc li may wax mooy Franc dafa ñafe ba yegg si fu mu war a yegg si c' est normal nag yenn mbeuri di ko défier di ko dëkk naan ko li la loolu c'est de bonne guerre. Hmm. lamb ak trash talk ño ànd. lamb ak trash talk. Hmm. ñoom ño ànd sport en général ak trash euh, trash talk ño ànd. Hmm. donc amna yo yoo c'est de bonne guerre man du positionné wu en tant que di wax non c'est-à-dire du ko fi fi di ko dëkk naan ko ah dañ lay wutal yoon loolu ils sont libres mais loolu c'est de bonne guerre mais man wax na la ni jambar li ma la expliqué nga xamne jambar wutul yon yoon Franc moo ñafe laay fam ba yegsi fu mu yegsi ndax ku bari 10 combat te goko 11e combat am nga teug ak 13e combat mu bari lutte simple ravage ko te go lutte simple mu dem wo jël ko dem drapeau chef de l'état jël ko donc koku dafa ñafé ba yegsi lolu mom moy deug lolu mom moy première chose maintenant polémique bi bari na ci digganteem ak Eumeu Sène mhm. li wax nak waxumako pour neexal Eumeu li may wax. waxuma ko ko pour neexal Eumeu Sène. mais làmb ji amul ko gën a nekk champion Eumeu Sène pour wax dëgg. Eumeu Sène dama koy seetaan depuis combat moog su lay topp su lay topp lool mën a xeex mën a dalay dóor nga ñëw mu xëcc la kott la. Sadio Iba daan ko wéyale ko ci ginnaaw saak la ko sànni. bëri combat combat yi gën a metti ci làmb ji Eumeu Sène a ko bëri il a raison. il raison combat yi gën a metti ci làmb moo ko bëri. def ay prouesse technique yu Eumeu Sène bu mu jëlee roi des arènes dama ne Eumeu dafa jël roi des arènes génération Mbapat ñoom Ousa Sow ñoom Ousmane Diop ñooñu la ko jëlal. Hmm. parce que ñun dañoo sonn ci làmb te amuñ ci dara jëriñu ci. donc Eumeu Sène prouesse boobu mu def ba ñëw nekk roi des arènes loolu consécration la. Hmm. waxuma ko pour neexal ko. dafa def ay preuve hmm. daan ay champion. dëggantaan confirmé combat yi metti la bëre. maintenant Franc jeune la am na droit défier ko am na droit wax ne dafa war a bëri Eumeu Sène lii laa la. comprendre nga mais tey bu nekkee Eumeu Sène dafa gis ne Franc lu mu wax da ko dépassé am na loo xamante ne tey Franc rakam la war na mën yëkkat téléphone ne ko ah grand comme da gis ne dama dépassé maa ngi jéggalu parce que wax ji fu mu jëm la. Mm-hmm. wax ji fu mu jëm la dëkkante am na ci làmb waxante am na ci làmb mais bu demee tey parce que kilifa la magum jëmm la am na ay doom yu mag. Mm-hmm. bu demee tey ba santi ne wax ji da koy vexé mën na ko nekk ci laa doon waxee. comprendre nga. donc parce que nit ki moo xam tey li muy yëg. li ci gën a garaaw du Franc li mu wax Eumeu Sène après li ci topp lépp la toole bu ci topp ak wax ci topp yëpp. li may wax li ma gëm mooy Franc Eumeu Sène combat la. man loolu laa gëm ne Franc Eumeu Sène comme ak Franc keneen nu mu nekkee combat Franc Eumeu Sène combat la Franc Sa Thiès combat la bu ñu waxantee dëgg. bu ñu waxante deug ñet adversaire yoyu ak franc ay combat la amma sen bu bëriwul ak franc wañul dara amma sen hmm amma sen bu bëriwul xam nga tay deug dafa neex wax deug la amma sen bu bëriwul ak franc wañul dara amma sen def na une carrière exceptionnelle bu bàyyee il fera partie des légendes de ce sport hmm comprendre nga hmm Franc bu bërul Eumeu Sène moom moo ciy perte mais même si mën na dem bëreeg ñeneen ba fu mu bëgg a yegg ci làmb moom mu yegg fa mais tey dafa am li nga xamante nii tey il faut ñu wax ko pour wax la dara rek man woo naa Eumeu Sène téléphone. Hmm. woo naa ko il y a de cela trois jours. doy ko lan ñu waxtaan. arrondir les angles. parce que gis nga làmb warul tourner viré ci animosité parce que comme li ñuy wax wax ji du demul woon rek ba yam ci diggante. Franc ak Eumeu Sène dafa dem deug nek digante Pikine ak parcel ay waxante di ci am te do xam fu mu jëm. ma mhm. ko ah yow kat kilifa nga. amna lo xamanteni ne tay mérité woko ci lamb wax di yegg fen mhm. ba yeneen mbër yi ku ci nek di ci wax lii la lale donc lo xamanteni ne tay mënoon nañ ko jema rafetal. waxtaan nañ muy nit ku bax nak, mom ak lañang waxtaan nañ ñu yag vraiment. Mhm. waxtaan nañ ñu yag man ak amassane waxtaan lu yag mu expliquer mom mom lu ko nakari

nekkul damay défendre Franc mais Franc ku ko xam nekkul nit ku reew am na fulla am na caractère mais nekkul nit ku réew mais di wax na nag bu loolu weesoo hmm. ñoom ñaan wax ji daal dem ba toolu fi nga xamante ni ku ñu bëreel bu ñu bëreewul seen biir képp ku ñu bëreel du safe même ñeneen sax dañ naan seen combat yéen ñaar xaw ma ndax comprendre nga fi may waxee léegi maanaam coow li dafa dem ba yegg benn niveau bi nga benn proportion bi nga xamante ne hmm. ah ñoom ñaar il faut ñu bëre doo champion d' Afrique fekk Franc dafa juum ama seen champion d' la. ah du ma champion d' dinaa la wane ne champion d' la ci biir arène nationale am na combat bi dafa enjeu foofu la nekk. waxuma ko nag pour dara. Ah. Mhm. mais dama ne làmb ji dafa am coow bi nga xamante ne ni tey parce que tey ça fait plus de dix jours foo dem Franc ama seen nga gis à la une. ku ci nekk nag war nga mën a bëree keneen ah ama seen war na mën a bëreel ñeneen amatul muy prouvé ci mhm. def na fi lu aussi war na mën a bëreel ñeneen. wara mëna mën a bëreeg Alioune Seye war na mën Sa ci war na mën a bëreeg ñeneen comprendre mhm. nga. mais fekk ñooñu bëgg a bëreeg moom bëreeg ñoom. parce que tay amna noy waxé rek day melni ne yow da ngay positionner comme ku voilà franc par force mhm. la jël ni té nak damay wax deug franc dafa yegg ci biir gaay yi. ci non lolu kenn waxatu ko mais sa digënté ak Eumeu Sène ci wota bi batay wax ngeen bu coupé té waxo ko ni jamba dañu bëgg sa combat ak Eumeu Sène. non lolu lolu du won biu waxtaan bi. Ah. bima ko wowe woowu ma ko woon pour combat. Sénégalais yi de loolu la ñuy ko woon pour combat dama ko woowoon rek pour arrondir les angles ndax moom kilifa la def lu nekk ci làmb am na coow yoo xam ne bëgguma mu am li ma ci gisoon conséquences yi mën a doon jur. Mhm. animosité Pikine ak Parcelles. booy supporter yi nga xamante ne affaire dañ koy jëlee dënn par yenn saay mhm. donc fa lekk ñu fay ci ku ne di ci wax moo tax gis nga làmb bu ñu ci wax yenn il faut ñu sóoraale yenn affaire yi mhm. si nag dëkkante ci làmb lañ ko fekk trash talk comme li ma wax sànq ci sport la am. mais buy demee ba yegg yenn proportion yi nga xam ne tey mën na jur yeneen boo xoolee tey kenn rafetlu ko lu xew tey Medina Gunaas. Mhm. nga xam ne tey passion gis nga dafay am loo xam da koy yee ci nit. bu ko nit ñi calmé wul rek mën na jur yeneen. moo tax ma woo ko moom muy responsable nag di nit ku baax. ci loolu lañu waxtaan léegi nag leneen moom bu jëlee beneen décision bu changé avis. Mhm. moom bu ko ba pare jàmbaar dina pour waxtaan ak moom ci combat bi mais comme dafa jëloon décision am te muy kilifa am na loo xamante ne kenn mënul wàññ loxoom mais bu demee moom ba décider ne ah dëgg yàlla li may waxoon yëpp mu ngi noonu amul problème. Mhm. comme waxtaan nañ ci jàmbaar pare na pour organiser ko mook Franc ci mois de décembre wala janvier. la ilaha illallah mois de décembre wala janvier Eumeu Sène Franc bu dee Eumeu Sène d'accord na dem na toog waxtaan ak staffam ba nangu macha allah loolu am na solo ndax PDG yaakaar naa ni wolof def ne. lu duufandoo ci nag bi xajandoowul ci cin te li ñu waxtaan yëpp njariñ la lan nga bëggoon wax loo xamante ne laajuma la ko nga bëggoon ko wax te waxoo ko. non non may wax rek mooy jili di ñaanal bu may ñaan sànq début dama fàtte ñaanal jullit yi nekk Palestine. Mhm. di leen ñaanal jàmm di ñaanal mm, noot bi jeex fa. Mhm. nattu yi leen suñu borom teg mu teg ko. Mhm. ba ñi leen di noot tey ñu mën a tegg seen loxo ci ñoom. di ko ñaanal jullit nekk ci ci àdduna bi yëpp. Mm-hmm. waaw am na yoo xamante ne nag du neex ci xool yow nga koy gis euh, chaque jour. Mm-hmm. di ñaan ci réew mi jàmm. surtout mm-hmm. Sénégal di ci ñaan jàmm di ñaan làmb ji avancé jëm kanam di ñaanal aussi waa structure jàmbaar production yëpp. jàmbaar wrestling jàmbaar sax laay wax jàmbaar wrestling mm-hmm. les coachs mm-hmm. les lutteurs jàmbaar production ba ci jàmbaar news mm-hmm. yow ci li jàmbaar production ñoom sama grand papa Sow nga xamante ne lépp moo ci nekk grand Alioune Sarr grand Thioune euh, grand Assane Ndiaye ñoom Papa Gueye euh, Pape Gora ñoom Serigne Dam ñoom Pape Kébé assurance nga xam ne l'infatigable chaque jour mi ngi ci gars yi chaque jour ñu ngi ci liggéey bi jàmbaar news ñoom mm. Mbène. Mm. Baye Jili vraiment maa ngi leen di Cheikh Ndiaye ñoom ñëpp mm. maa ngi leen di maa ngi leen di maa ngi leen di maa ngi leen di sant bu baax. gis naa seen Khalil borom Kaza. waaw Khalil <laughs> waaw. Ah. maa ngi maa ngi leen nuyu bu baax di leen di leen ñaanal di ñaanal tous les acteurs de la lutte. jàmm ak salaam. waaw di ko ñaanal sama famille di ko ñaanal sama soxna. ko ñaanal mbooleem jullit di ko ñaanal bépp bépp doomu aadama. di wax aussi di ñaanal waa mouvement des jàmbaar du Sénégal. Mhm. ñu mën a fexe avancer jëm ci kanam. aussi di leen sant di leen gërëm gis naa seen seen taxawaay gis naa cofeel bu ñu am ci man. di wax na rek maa ngi sant sama mbok yi nekk ñaari tali. Mhm. Euh, Saint-Louis euh, waa Ziguinchor maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax. di sant aussi Parcelles Assainies 1 ba 26. comme mhm. fii laa yeewoo te fii laa defee lépp. Mhm. di sant waa Parcelles Assainies 1 ba 26 di leen wax ne gis naa ñaani gis naa yéene bi. leen wax ne rek seen doom laa daal maa ngi leen loxo ñu gën ma ñaanal di la ñaanal yow aussi sa chaîne bi dem ba nekk télé jàmbaar nit ñu koy dégg partout dans le monde vraiment je pense que euh, pour ne pas trop tirer en longueur mhm. Euh, di nuyu sama xarit nekk ci diaspora bi aussi. Mm-hmm. vraiment parce que ñoom dañ may dañuy sonn ci man di ma woo tout le temps. waaye mm-hmm. di ci leen nuyu bu baax ñoom Serigne Saliou Argente yi maa ngi koy nuyu bu sama mm-hmm. sama sama xarit bu baax la. waaye sama xarit nekk États-Unis ku lim juuma. ñu nekk Europe bi yëpp Espagne Italie France partout di nuy sama rakk benn rakk en particulier nag. Abou Koli vraiment moom sama rakk la te mi ngi Italie mais. manqué na ma trop dal eh, sama rakk la sama xarit la di ñaanal bu baaxa baaxa baaxa baax fu mu nekk lu mu fay wut yalla nako ci yalla taxaw bu baaxa baax ya di ñaanal ñepp dal jamm di ñaanal jere inshallah jere allah jere Jeff, mbokk yi deg ngeel li nga xamantani mom la PDG Mansour Ba wax di nit ku baax nit ku yaatu nit ku yor teranga, ba pare mën ko bokk ak jamm yalla aussi di jamu yalla ci jamm mi tayit bëggul ku ko wax xam nga des réew mi moom boo waxee diw ku baax la dañ naa ana lum la defal waaye teraanga bi nga xamante ne yéen nañu ko waxuma waa parcelle waaye Sénégal ñëpp teg nañ ci seen bët yàlla na yàlla suñu borom guddal fanam ba mbébét bi nga xamante ne am na ko ci réew mi di Sénégal yàlla suñu borom kàttanal ko dooleel ko ba mu defee ko ni mu ko bëggee macha allah mbokk yi di jaajëfal bu baax a baax alaaji ma si la joom man jékki-jékki naa rek mu envoyé ma wéevu am doole macha allah maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla suturaal teral ko yokk xam-xam bi defal ko bépp teraanga boo xamante ne bëgg na ko ci àdduna mbokk yi tey nag lii lañ doon waxtaan ak PDG Mansour Ba ginnaaw at bu jot dañ koy def ak moom fii ci këram macha allah di leen jaajëfal bu baax di leen wax ni doolay jën ndox doolay woykat public mais doolay jàmbaar news yéen la mbokk internet yi ñu ngi gis commentaire yi ñu gis waxtaan bi ñu ngi gis lépp loo xamante ni yéen a koy réclamer ñi nga xamante ne ñooy jàmbaar news waaye du ngeen ci am gàcce benn yoon